ngeen ñaanal ñu ci bi ñu jublu yàlla suturaal ñu may ñu ndam bu loolu passé di maa ngi nuyu waa bi yëpp bu ma limee damay juum waaw Medina Fass bu ma limee damay juum di ziyaare ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp teew fii kontaan naa yow waaw di nuyu champion Bawol yi yëpp waaw di ko jiital ci sama mag Tafa di nuyu képp kuy takk ngem dëkk Bawol di la ñaanal boo amee combat yal na la yàlla saa borom may ndam lu sëg waaw. ñu gis la ngay waaj combat sa diggante ak Baye Mandione Junior du ma la laaj sax naka nga koy waaje ndax njortu naa ne bi Tapha Tine di waaj yaak moom gën a ànd ci wàccaay li naka nga waajalee Baye Mandione. waaye comme ni ma doon waajalee mbir yi ma doon waajal rek waaw di entraîné. njaatin moom ku ko xam di entraînement nga ko xam xam nga ko ji leneen waaw waaj fépp rek lépp lu combat bi laajoon def nañ ko. di xaar yàlla suñu borom mi moom moom ndam te di ko maye mu teg ko suñu loxo le neuf loolu lañ koy ñaan. xam nga baay Baye joon xam naa ko rek comme mbir yi ma doon bari la rek. waaw noonu la deme waaw. dañoo gis ne sa combat du yomb xeex bi da ciy bàyyi te da ngaa agressif ñu gis ne baay Baye joon moom tamit xeex moom daanaka daa mel ni euh, gu woon naa ci xum soow la sa diggante ak Baye Mandione est-ce que di nga xeex ak Baye joon lu lam ji laaj rek ci kattanu yàlla dinañ ko def. andi nañu lépp. jàng nañu xeex jàng nañu bëre lépp rek loo xamante ni bu ñu ko defee dinañ am ndam bés dinañ ko def ci kattanu yàlla waaw. instant bii nii lan lan lan la bés bi laaj instant bii nii. bés bi li mu laaj ndam rek la laaj leneen ndam la laaj ci kattanu yàlla te bu soobee yàlla am nañ ci yaakaar ne dinañ am ndam ci kattanu yàlla. parce que liggéey nañ luñ ko jox maa ngi profité di sama coach yi diñ may teg lu ku mel ni Bodian mbay Ndewane Ibra Diagne Ablaye Gueye waaw diñu may teglu lu méttee méttee méttee ngir ngir Ndiaye Tine gagné waaw noonu la demee. te gis nañ lamb yu bari ci décision arbitrale la fay jeexee te yow yaakaar nañ ne sa combat ak Baye Mandione Junior du àgg foofu. non mënut a àgg foofu parce que waa ji sunu bu neex lay def parce que du xaar dama du ma ko xaar combat bu gaaw lay nekk ci kattanu yàlla. lan ngay wax sax fan si ngir ñu sawar ñëw seetaan si la ci bis boobu. no fans yi moom li ma leen wax ku leen gis su gis li rek xam ne fans yëpp képp kuy bëgg Ndiaye rek pare na waaw képp kuy bëgg Ndiaye Tine rek pare nga pour ñëw supporter si bés bi. noonu la demee nga lancé benn message parce que gis nañ ne làmb ji fuñ ko tuddee violence am donc bëri nga ay supporters lakka nga leen di wax ci bis boobu. non supporters yi Ndiaye Tine moom violence moom duñ ko def képp kuy bawol bawol sax xamoo si xamoo violence waaw bawol bawol xamul violence. bawol bawol xamul violence waaw ñooñu ñeneen lañ koy wax waaye du du bawol noonu la demee nag waaw. ñu ngi lay nuyu ginnaaw bi ñu la nuyu bu baax a baax Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaw Ndiaye ñu ngi lay nuyu rafetlu suñu presse bi demee ak teewaayu mbëru Bawol yëpp gis nañ ci biir am nañu Bawol yëpp teew nañu mooy jaajëfal mais est-ce que Ndiaye adversaire bi ngay bëre ak ak taaj mu am mu nekk Patrick bàyyi nga doon xet parce que mosoo bëre ak adversaire boobu am bu am bu am taaj non mën naa ne mën naa ne mën naa ne combat yi combat man adversaire boobu mënu maa jaaxal parce que ñi may contactal ñoo ko gën a diis ñi may contactal ñoo ko gën a diis kon mënu maa jaaxal bés ba mënu jaaxal leen loo xamante ni war na ma mën a jaaxal ci diggéew bi te du am ci kattanu yàlla lu mu mën doon li ma la wax déggoo li ma la wax nee naa la di ñoo pare fépp na ñu contact nañu physique nañu lépp luy maye ndam daal def nañ ko waaw di ñaan yàlla ànd ak ñun fu sore sore la ma mën a yóbbu sax parce que Ndiaye li tegoon avance am li ko tegi booy yi taxawal fii di balbal am guñ fi jox avance Ndiaye Tine nga tegi ko waaw. non non man damaa xus sama yoon de. man damaa xus sama yoon. waaw neuf combats laa def. benn woyu ma nag ragu Tapha Tine la damaa xus. amut combat sama seetaan ngeen sama combat yéen a ngi nii amut combat boo xamante ne nii bëri naa ko combat boo xamante ni combat bu yomb la damaa ñëfee sama combat ba yàlla ma suturaal ma maag si fii maag di ñaan yàlla mu continuer continuer ba ñu jéeg dégg roi des arènes bi ci kattanu yàlla te di ñaan am am nañ am nañu gëm-gëm bi. am nañu gëm-gëm bi am nañu patience bi te bu soobee yàlla dinañ ci taxaw ba gars yëpp xam ne taxaw nañ ci ci kattanu yàlla waaw. lan ngay wax lan ngay wax Baye Mandione. waaw li ma koy wax bariwul lu nof bariwul lu nof soreetul li ma koy wax bariwul deux jours a jël xam trois jours. di ñaan yàlla yóbbu ñu ci bés beeg jàmm rek. waa di jaar rek waa di jaar mafia njaaytin bi ci kaw. <laughs> waa amul leneen. jeex na tag waa ñoom Sakho. musa Bambara. eh jeex na tag waaye amul leneen de. ñëw ñëw ñëw. loolu war a tax nga sant mbër mi gërëm ko ni mu jëlee sa wax. waaw loolu dama ko fi sant gërëm ko parce que man toog naa ay yées. gars yi xam nañ li may wax li ma wóote di ma wax ay euh, pour sama combat di wax sama combat mu yàqu kenn xamul lu mu toll bari na mais bu yàlla defee mu jël ko loolu dama ciy kontaan te xam ne ñun ñooy mante xaay waaw noonu la demee rek noonu la demee. violence du fa am ci kattanu yàlla bu dee bawul bawul rek. violence du fa am ñoom ñoom di ñëw supporter seen mbër waa waa di leen sensibiliser rek ñoom ñëpp ñi ñëw ànd ak yàlla ci teggin ñëw taxaw sol yu ba naaj jàpp ma jàpp waaj ji sànni leen golam jigéen amul leneen jeena tak waa di sant bawol bawol yi yëpp nag képp kuy bawol bawol maa ngi lay sant Touba Tour Refan yëpp daal réew maama bu ma limee damay juum maa ngi san ñëpp di leen gërëm waa di sant sama gars yi sant neeni ñoom Baye Sall Ñame Maas moo ma defaral tiset bi sama doom de sama xarit moom Ñame Baye Fall ñoo gën fii ci Baye bi waaw noonu la deme waa di siyaar ñëpp di sant sama benn xarit Mas Mas Touré borom marché Tilène maa ngi koy woo ci bés bi bu ñëw jàpp bés bi ab képp kuy euh, autorité Colobane maa lay woo ci na bi ngeen ñëw taxaw ñu ñuy assister seen doom waaw noonu la demee waaw di woo Thierno Ndiaye ci bés mu ñëw taxaw ji jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax noonu demee di woo ñëpp di woo ñëpp di siyaar ñëpp di gërëm ñëpp di xam ne kontaan naa ci ñoom te bu soowee bés ba dina ñëw ànd fula ak fayda yàlla may ñu ndam ñu ñib si Colobane yóbbu ko Réfane